waa kay mbaay soxna Mbodj Mbaye rek ñëwaat na vidéo bi tam dafa am lu ma ci bëgg a leeral ndeysaan ndox ñu baree bare baree bare ku ci nekk ak ni ngay jongee dama bëgg a ñëw ak yéen tuuti ci jonge ndax ku nekk ak ni ngay jongee waaye déglu leen ma dafa am ñoo xam ne seen jonge ci togg leen xiir togg rek di yàq kese yaa may xam ne seen jonge ci fóot leen rek dara du taq ñaar am ñoo xam ne seen jonge ci seen yaram day set wicc ñett dara du leen taq am ñoo xam ne seen néeg seen kër doo fa for bant muy ñeent am ñoo xam ne ci dara yu weex rek la muy juróom am ñoo xamante ni tarkal mi ngi leen xiir ci eh, ay vaisselle matériel bu rafet ñu jënd teg muy juróom benn am ni say mbokk lu leen jóge gi xiir muy juróom-ñaar say mbokk moom lañuy jéem a sëyal ñoom fàtte jëkkër ji am ñoo xam ne jëkkër kottul ni sëyal fàtte famille bi ku nekk ak ni ngay joxe am ñoo xam nag bu ñu tëjee seen néeg bi ba teg seen matériel yi jigéen nga ne ñoo fi mën ba njaab ba jaagar jaakari ba takk fer ba tànk cuuraay waaye bu ne woon ci kawlal bi bu dugg nga déedéet kii kan ñu dem nag en faillite daanu ba nelaw xam xamuñu luñ fa war a liggéey am ñoo xam ne nag tànkal la seen yi ci digg lal bi lañ koy réglé ñoom mu bañ a ba bañ a fóot bañ a yàq moom yaa ngi dégg set seen bopp waaye bu gudd jotee nga ne jeeg bi moom lan mooy problème am mu yëg ci kaw lal bi liggéey fa lu rëy toj yooru jëkkëram mu topp ko yëgër yëgër bu ko defee nag yow ci sa wàllu bopp kii du la amal mais mi ngi bëggal jëkkëram <laughs> ay Mbodia Mbaye looy wax nii lii may wax technique la dama bëgg nga jox ma noppi rek ma leeral ci cadre joxe yooyu yëpp nag amul bu ci mën a dem bàyyi moromam muy cet gi muy mën a togg gi muy mën a fóot gi wax ju neex ji bale raxas fomp nettoyer matériel déguisement yëpp tout benn munu cee dem bampa morom waaye gis nga digg laal bi <laughs> gis ngeen digg laal bi jéeg bu la ko dàq moo la a joxe ko dàq moo dominé jéeg bu la ko rek moo dominé pour ngeen bàyyi ci xel ba pare nag joge kese du affaire bi de ndax loolu lépp xeetu jàng set geeg mbokku jëkkër yeeg xeetu jàng waaye caay-caay <laughs> Mbodia e Mbaye wax mu luy caay-caay mooy luy marqué góor mooy caay-caay caay gu mat gi bi nga xamante ni taaru kàll la moom mooy toj yóor ci mooy jéeg bi jonge ba pare rax ci caay-caay waaye bu dee jonge dong ci ay matériel ci set geeg toggu geeg mbokku jëkkëre googu yépp dafa jonge waaye fi picc bi nekk ki koy xoos waaju du xulleeku bu yéegee ci kaw lal bi liggéey fa lu mel ni ku lekk male liggéey fa loo xam ne bu bàyyee wax ci waa ji day soo ko meree mu ne ci mbedd bi ku mu romb nuyu la soo ko meree mu ne ci ndox mi ku mu romb naan ndox mu mu romb naan ko sii bu mu romb jënd ko énervé bopp bi toj mu réer ko ko jógee ndax lan boo jëbaal da nga wax lii parce que waajaa ngi xalaat man kat boo jëm mere na ma tey sama àdduna perturbé wu na parce que lu neex li ma tàmm dund moom koy defal deuxième boobu su ci jógee mu ngi jëm ci jigéen ji nga xam ni moom dafay dafay dafa dafa dafa dafa gaaw ci biiru jëkkëram jigéen ji gaaw ci biiru jëkkëram tamit day gañee ak jigéen ji bëgg mbokki jëkkëram moo tax jonge par qualité la soo ci teewee nag mën laal mën préparation set mën a togg mën a fóot sa kër di normal bëgg sa mbokki jëkkër li ci des yëpp mën nañ ko démerder bu dee reewa na geeg yëpp mën nañ ko gérer waaye loolu fexeel ba téewandoo ko yow jekk nga xool sa jëkkër mu muy dund ak nga xool sa jëkkër fu mu lay teg boole xoola patt nag wax ju bari ci day tax kenn duutu la nobati détail day tax kenn duutu la nobati wax ju sew ju buddi ji capat capat ju amul bopp amul genn day tax kenn duutu la nobati bu tax sëy boo ci xasee bu dugg dafa am personnalité boo ci toogee kenn du dépassé <laughs> barke Seex Ahmadou Bamba kenn du dépassé jëlal sa yoon ma jël sama yoon dàppal ma jàpp na neex wayul ba mu neex ma bandi ba mu neex ñu daje moo tax jigéen dëkk jonge day ànd ak caay-caay boo bëggee mën ko mais jonge kese am na jigéen ñoo xam ne bu la bu la ornelee nga jooy suñ la décoré nga jooy suñ la rombee nga yuuxu ndax taar bi ci ñoom ak saf jigéen ji ci ñoom mais mënuñu laal <laughs> mënuñu laal amuñu caay-caay mënoo tee kenn taar bi nit ñi rekk koy gis mais pas sa jëkkër parce que lii toj jur gi laalu ko décoration rek nga mën nag ñu ne jeeg bàjjo fekk déedéet boo duggee ci néeg bi da ngay <laughs> amut ci réew mi ne Ngoja Mbaay man may jigéen xool jeeg am na ñoo xam ne bu ñu taxawee ba armé wu dañ tey tëj néeg bi bu ñu taxawee ba armé wu fu déguisement bu rafet dënd nekk nag ñoo ci seef fu déguisement bu rafet nekk ñoo ci seef dañ jënd ba naani géej waaye wallaay azim boo tëdd ak ñoom ci kawlal bii mënuñoo fayu mënuñoo puus xamuñu fu muy jaar xamuñu nañ koy lijjantee mu zëm mu ni guy am ñoo xam ne seen déguisement sax bariwul waaye buñ la ràccalee <laughs> buñ la ràccalee nga tudd yàlla kon ci bokku ci fi jigéen ñëpp duñu benn ku nekk ni nga jonge am ñoo xam ne nga yuuxu waaye mënuñu laa ci néeg bi am na ñoo xam ne doo sol lu tilim di nga set di nga correct waaye mënuñu laa satisfaire amuñu caay-caay kon kuy jàngu jonge da nga jàngale caay-caay góor mooy joŋe mais jigéen day mokkuru ngox nooy nepp xam la doon xam yow la kan saf sàpp ak jeeg te mën ngay def <laughs> moo jëmbaay day wax nii moo tax yaakaar ni sëy mokkal nga ko ba téye ko réer nga sëy du mokk mook toggayam benn jeeg du ko mokkal saa yu xëyee am kele boo ci ne kàlli tëj jàngi leen jàng du wees nga xam ne jégg ndaw joo xam ba tey ñu ngi wëyal di niil kon góor góor lu leen ci jëkkër ji yokku caay-caay gi te jonge vaisselle yeeg cet géej yépp dëgg la mais bu leen fàttalaa bi ñuy muy vivre ñu ko góor ki ñambax ñambax ba ñëpp topp la kooku yaa koy liggéey caay-caay moo la koy may kon mën ngaa jonge te doo wëyu doo am caay-caay nga téye góor du yomb waaye soo jongee rax ci caay-caay xam kale di ko tijj saa yu la neexee tijj gëmm di tijj tëdd di tijj xool di tijj su boobaa nga maîtriser sa jëkk tee ci loxo fi nga toog lay toog li nga wax lay wax dara du ko dindi eh